asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Sen TV maa ngi lay nuyu ñëpp. mais yow Macky Sall en tant que président de la république yow nga taxaw ne dépensé nga 750 milliards yow 750 milliards fi nga ko dépensé woon nga am réponse xaalis fi mu dugg yooyu donc yow waroo sax laaj ay compte wala yooyu loolu waru sax am moo tax bu deen dëkk bu am yoon dëgg-dëgg président de la république dafa war a dem assemblée. assemblée taxaw laaj mu expliquer li ak lii loolu laa mënuñu se passé wax dëgg yàlla di rafetlu seen taxawaay yi ñëpp wax dëgg yàlla waaye de médias ñu ngi leen ñaanal rek yàlla gën leen defal jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Sen TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara leen balu ak leen balu ak di seen liggéey dañoo yab senegal yab leen yab bu toll nii li xew senegal yëpp moment bi ñu toll nit ñi di dund ay métit bu dégg bëccëg depuis bu feebar bi commencé ba léegi nawet bi ñëw dool leetik nit ñi ay miir yi daanu seen kaw ñuy dee xale yi di jàngi di xuus ci ndox mi di war a def examen di xuus ci biir ndox mi ñuy sàcc suñuy milliards guddeeg bëccëg sàcc suñu suuf si yëpp hmm? ñoom politiciens yi doo ci gis kenn ku seen doom di jàngi foofu ndaw ñi yàlla dénk xam-xam nañu jug takku te jël xeex bi def ko muy seen xeex sénégalais jàppale leen ci ab réew xam-xam moo koy defar ak liggéey ak dëggu tey soo ñëwee ci si Occident bi si diaspora bi nga xool ni àdduna bi doxe léegi danga nga naan Sénégal nekku na ci monde bokku na sax si àdduna bi wallahi lazim asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mouhamadou Mansour Diop ñu ngi leen di ziar wér Mbaye Diop la Mbour ñun suñu réew mii alalu réew mi daal dañ koy gaspé di ko dugal foo xam ne waru jàpp rek jàpp na yàlla suñu la falee boo ñëwee yaa gën a yées. 2012 Macky Sall mi doon toog ci biir réew mi ay milliards lañ fi lañ juróom bi kenn ku nekk làmb sa poche ñii ñaar téeméer ñii juróom ñii junni ñii ay millions ñii ay milliards. ñun pour lan mën mi lañ ko dimbale woon ba léegi gis ñu suñu bopp tey la réew mi gën a inondé mbuur fi fii ñuy wax quartier oncat fii ci point moom ñëpp a génn amuñu benn dimbalaasu te affaire bu yomba saafara moo fi nekk mais ba léegi kenn mënu koo saafara kon alal ji milliards yi ngay dégg xaaju ñu koo dugal ci biir réew mi dañ koy itam tabaxee réew ma jël seen doomu jàng bitim réew jël alal ji rënk ko bitim réew boo dañ ci doon inverti fii Sénégal nañu koy dënk rënkiwaat si réewi tubaab bi réewi bi ñoom ñu siy lebal seen doomi dëkk ñuy liggéey ñun suñu doomi réew yi diggante walaa kaana ñu leen di ziar leen gërëm ñu leen di ziar ñu nitam tam yéen itam def leen ni ñoom ngeen envoyé ñu seen euh, vidéo ci whatsapp bu groupe euh, des médias ndey di met dégg nga leen dégg naa leen xam nga lii day firnde rek ni kon du journaliste yi ñooy xambataal bi parce que depuis démb ak tey euh, ñu ngi wax ni journaliste yi ñu ngi laaj euh, xaalis bi fu mu dugg alors que am na ay réalisations yu ñu ci jot a def mais askan wi si boppam tey ñooy demander des comptes 750 milliards yooy nga xam ni tey suba sax déggaat nañu ni ëpp na loolu ñu ngi wax 767 milliards fan la dugg parce que sànq ci sama njëlbeen wax maa ngi doon wax euh, restructuration des banlieues temps yooyu mbënn mi wax dëgg yàlla tane woon na si yenn zones yi mais est-ce xaalis bu ñu prévoiroon lépp lañ ci dugal loolu tamit laaj bu samp la parce que ci jamono yooyu noonu côté Wàqinaan Nimzaat ak côté Diamaguène euh, côté Diacksao amoon na ay temps yoo xamante ne wax dëgg yàlla mbënn mi wàññeeku na mais lan moo xew ba ñu jékki-jékki ñu amat ay inondation mu mel ni foofu kenn mosu fa def dara kon loolu tey dafay wane ni est-ce que xaalis bi nga xamante ne ni nguur gi waxoon na def na fa yëpp def na ko loolu laaj la beneen bi tamit gis naa euh, ñi am bac ma leen di félicité ñi nga xam te ne amuñu ko tamit euh, ñu dem uti jiwaat euh, da gën a defarwaat mais fii encore day wane ni nguur gi lu mu bëgg a def dina ko def parce que bi mu bëggee ñu amal examen yi amal nañ ko bi mu bëggee nit ñi retourné waat ci classe yi def par force ñu bañ a def année blanche def nañ ko kon tey jàpp naan tamit président Macky su bëggoon tey inondation yu jóge fi dina fi jóge su bëggee tamit élection locale tamit am dina ko def lépp mu ngi dépendre ci volonté politique te yaakaar naa ne tey ji encore une fois il faut que ñoom ñi ñu fal muy président Macky muy keneen ak keneen ku fi war a ñëw il faut ñu respecter askan wi parce que lii mënta continuer euh, wi sax ñu ngi ci seen rôle moo suur ndax ci euh, plan décennal bi moo suur yi fi nekk ñett dong moom la ñu jot a mu mel ni des na set Pape Gorgui Ndong moo ko moo ko moo ko révélé tey ci bëccëg bi may def journal ak moom te moom nekkoon na euh, ki nga xam moo doon coordonné li nga xam moo jëm ci wàllu gérer inondation yi mu def ci ay précisions yu leer mais toujours damay faral di wax sénégalais yi ni souvent bu ñu tuddee benn somme bu ma leen tiital bu ñu tuddee benn somme sept cent euh, cinquante milliards boo ko joxee golo sax mu defal la dara wax ma la ak nit bu am xam-xam mais seen li ñuy déggee xaalis boobu bul fàtte ni Sénégal balaa ñoo nam ma def dara daañu ci def fukki séminaire bala ñoon na ma def dara séminaire yooyu daañu ci génne ay per diem daañu ci fay hôtel daañu ci jënd carburant daañu ci fay ay experts yi def ay déplacement donc yooyu yëpp dañ koy comptabiliser waale parce que euh, benn anecdote bu doy waar euh, benn tubaab mos na posé benn sénégalais problème da ngeen def ay séminaire lu bëri euh, la moo tax doo leen wàññi séminaire yi sénégalais ni ko wéy li nga wax ni am na solo donc on va faire un séminaire sur ça donc lépp séminaire la mais lépp ci ay semis lañ fi nekk nii lu nu lu nu kët lu nu jonn moo koy faj askan wi dañuy souffrir dama ni ministres yi tey ñu nekk ci gouvernement bi nag kenn jéem a essayé dem fi Birahim Touré nekkoon sànq mu jéem fa def benn une de temps mhm. jéem fa boyal ataayaam jéem fa teg poolu lekkam c'est-à-dire tu te la place de la personne pour nga mën a juger kii euh, difficulté bi muy dund ñoom xam nañu ko parce que kenn xëyu ci nekk millionnaire kenn xëyu ci nekk milliardaire xam nañu ni askanu Sénégal dañuy souffrir fi mu nekk nii souffrance bi depuis mois de mars ba léegi suñu doom jàngiwuñu ñu ni suñu doom boo leen fayul école privée yi leen jàngalul duñ leen jàngalaat téye seen ay not gouvernement bi mu ngi seetaan réagir suñu ay doom yi nekkoon ci euh, classe yoo xam ne ay secondaire la ak euh, seconde ak ay première xamuñu boo xam ne dañuy passé classe ñu doon def terminale ak troisième ñu def loo leen examen déclenche boobu dafa pëccëxoo réglé wuñu ko xam nañu ko yeneen yi nga xam ne am na ci ay problème xam nañu ko te am na beneen problème bu a pur parce que rapport bi ñu nëbb askan wi muy taw bi ñu leen woon ñi dafay faw mu am ay ay ay ay catastrophe naturelle annoncé woon nañ leen ko ñu jël loolu denc ko boole bokk nañ ci li ñu leen annoncé mooy déwén boo saag ne doo leen am jiw ndax seen gàncax gi lépp a yàqu parce que li ñu jiw ba noppi dina répercuté wu ci nawet parce que taw bi jeexagul bu ko defee kenn du récolter lu am solo béykat bi nga xam li mu dund daaw ak diggante coronavirus ak léegi bu ñu ci yokkaatee gàncaxam baaxul ak li nekk ci taax yi fii nii te gi xam nañu loolu ah fi nekk nag fos yi euh, réew mi safaanuwul ak aw mool wu amatul borom bu ko téye fi mu nekk nii moo tax nag ñoom fokk ñu dem sur le terrain mus li Sénégalais yi di mus. ñu euh, daal di ànd ak euh, ñeneen ba tey ci seen rubrique seen xalaat. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw yéen waa Sen TV ñoo ngi leen nuyu di leen ziar jox seen wàccuwaay mais li ma li ma bëgg ngeen xam ko mooy dama am tuuti benn lu may wax ci régime mu Macky Sall bi. régime bi dafa trompé jeunesse Sénégal parce que euh, li mu ñu diggoon en 2012 du lii. maanaam virus bi dal Alpha Condé. dal Alassane Ouattara ñun ñoo ngi ñoon yàlla mu bañ a dal Macky Sall n'importe nag ànduñu ak moom mais ñu ngi koy ñaan bañ koo dal parce que tamit ak lu mën a xew moom euh, affaire bu gan ci moom ndax 2012 fi la ko fekk Abdoulaye Wade bi muy tànn sa sa troisième candidature yaakaar naa ni euh, bu démb noonu tey bu xamoon ne nii lay demee kon du ci dugg comme par exemple nit ñi wax naan su ko neexee présenté parce que deux mandats la wax mais mais d' accord deux mandats la mais dañuy dañuy nii nëpp la wax. na bàyyi loolu xel baax na nekk leen ci jàmm. Macky Sall maa ngi rappelé wu buñ ko laajee ci troisième mandat bi nest pas moom dafa ne du wax waaw du wax déet ñàkk responsabilité foofu la njëkkee ci njiitum réew. boo rappelé woo Ablaye Wade euh, le 23 juin fii la ne woon tukki woon xamoon na li xewoon te loolu mun na am à tout le moment boo waxul wii jamono bii du ma doon candidat wala candidat candidat moom lay doon da mën a ne candidat doonuma candidat réew mi am jàmm. waaye képp ku la ne mën nga doon am troisième mandat fit na moom nga nar ci réew mi parce que nag ñun du ñu nangu kenn ku ñu noot réew mi nag amelu la yaa amel réew mi te amul benn président bu mun a ñëw fii mun a noot Sénégal yi nga ne par la force dangay am troisième mandat amul te ku ko wax waxoo dëgg. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ma Macky Sall yow da ngay seetaan seen TV. nga dimbali ñu si wàllu transport surtout super yi moom moom moom lu leen neex la ñuy def moom. Euh, dañ ñuy yabee kaas ba par droit diggante kaas ba ak par droit deux cent franc nga xam ne cent franc la woon léegi deux cent franc la ñuy si fi yabee euh, beneen bi mooy wala sinon ñu yëpp la diggante kaas ba ak police cent franc nga yéeg di wàcc mel ni ku yor ay xar. ñoom noonu la ñuy réagir alkaati yee ngi tout pare réagir uñu euh, deuxième point bi may waxaat mooy sa travaux yi ngay liggéey nii Macky Sall ngir yàlla liggéey te deel sóoraale canal ñu canalisation yi ñu koy sóoraal pour ndox mi bu ñëwee mu bañ a sonal askan moom xam naa ne jaay nga ñu bu yàgg français yi donc lu ñuy metti la loolu lu ñuy metti la si réew mi te tamit ay ay borom xel lañ si réew mi lañ dëkk ay sénégalais lañ lu fi xew rek xam nañ ko su ko defee nga bàyyi xel loolu surtout canal yi nga bàyyi ko xel ak transport bi métti nañ trop mu ngoog Mouhamed mu mel ni euh, toowal troisième mandat ba tey fayagul. waaw askan wi nag xam naa ne jamono ji euh, mbënn mi sax ñoo ñu gën a yitteel nag parce que mbirum troisième mandat nu ko waxee waxtaan wax nañu ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi euh, peut-être euh, teel cee wax mun na doon am mën na maanaam teel na daal pour wax ci parce que dese na ko encore une fois des années wax na waxaat na ne ñaari mandat lay def donte sax am na ñuy jiixi jaaxa ci ne la mu mujjee wax xalu xalut tey. xal waaw waaw ci wiiwu noobeeg yu mel mais nañu dañuy jàpp ne am na lu nga xamante ni moo gën a doon priorité tey muy askan wi sonn lool ci ci wàllu mbënn mi que nag ay ay mbiru troisième mandat beneen bi mooy am na ku wax mbirum canalisation ci yenn ci ay travaux yi gis nga VDN 3 bi. man mi ngi mi ngi doon taw euh, taw yu métti ma jaar fi ci 23 bi euh, mais euh, ba ñu koy ba koy tabax dafa mel ni dañu fàtte canalisation wala fi ndox bi di jaar daanaka day fees del del del oto yi dañuy wetu pour jàll te loolu oto yu bëri da ciy paan te oto yu bari mën na ci accidenté beneen bi am na ku wax mbirum car yi tey jii nii ñoom ma seen manque à gagner la ñuy jéem a fàtt parce que dañ leen di dañ leen di droité ñoom car yi ba ci clando yi di leen wàññiloo nombre de passagers wala ñi nga xamante ni dañuy toog ñu respecter distance bi léegi nag ñoom loolu ñuy manqué la ñuy jéem a dabu di yokk paas yi ba ci clando yi fi nga doon fay cent franc cent cinquante ngay fay fi nga doon fay cent cinquante deux cent ngay fay donc réew mi daal euh, moo moo moo ni tëddee waaye daal nañu bu ñu fàtte ne xadi colonel priorité yi jamono ji mooy inondation yi préoccupations en tout cas man jàpp naa ne mbirum troisième mandat bi tant que président Macky Sall wu ci de façon très claire spéculation yi moom du fi jeex parce que tamit nit ñoo yey ndax ku ndobin rey sa maam boo gisul lu ñul daw mu nekk ni temps yële passé suuloon nañu ko mais li ñu gis mu am ci yeneen dëkk moo tax nit ñi sulliwaat ko donc man jàpp naa ne mu évacuer ko une bonne fois pour toutes euh, dina tax daal ñu avancer dem si leneen a moom la jiite beneen bi si wàllu inondation yi toujours foog naa loolu la foofu tamit man dafa am lu ma jaaxal sama xel dafa dem léegi ci fonds force Covid 19 bu ñu fi taxawal génne mill milliards ni dañ koy jàppaleek ak ñi nga xamante ne ni euh, dañu seen seen loxo dafa jotul seen ginnaaw ci mbirum corona bi xadi encore une fois problème de priorité mi ngi ni posé waat na xam nga bi ñuy wax ni dañuy jënd ceeb jënd diwlin séddale ko askan wi mais est ce que moment ci moment boobu noonu ñu doon jënd ceeb beeg diwlin bi est véritablement askan wi soxla woon nañu lool parce que Sénégal yàgg na métti nit ñi yàgg nañu am ay jafe-jafe te ñu ngi ci doon génn te gisuñu président bu jënd ay ceeb ak diwlin di ko séddale donc mu mel ni encore une fois loolu tey dafay gën a firndeel ni rek am na leneen lu ci laxasu woon muy mbiru politique parce que bu fekkee da am rek loo bëgg ñoo bëgg a dimbale dimbale ngi feebar bi wute na lool ak euh, xiif Mansour. Euh, troisième mandat moom wax ko jamono ji vraiment ak fi Sénégalais toll yabaate la mu ni sax mu ngi ci mu ngi ci seen xel parce que fi mu nekk nii Sénégal diggante mois de mars léegi ku am xel tey xalaat ku nekkoon ci xolu Macky Sall dëggantaan bu fi en tant que sénégalais président Macky Sall en tant que sénégalais en tant que patriote xam nga ni li yanu ci li tegu ci boppam ci ab yan. yow yaa ngi wax ni surtout taux de croissance yaa ngi koy ci ay zéro virgule nangam pour cent maanaam foo xam ni réew mi ba mu amee indépendance ba léegi daanaka ci wàllu ndóolu mosu faa yegg yaa ngi gis baisse bi nga xam ci biir Sénégal am ci wàllu euh, exportation yaa ngi gis njëg yi ni mu yokkoo ci marché bi te mënuñu koo contrôler. yaa ngi gis état bi fu muy koppat koppatee xaalis saa su nekk plan Orsec ñëw di dojj ci koom muy leneen loo xam ne dogalu yàlla la kenn amu ci pexe bala ñuy te gis nga presse bi am nañ ci part de responsabilité gis nga soi-disant juristes yi nga xam dañuy wax waxi kasaxa xandang na leen jël teg leen fële def ci troisième mandat bi ni ci Macky Sall yi defee ku ko ku ci wax ñu bañ a jàllale sa élément ñu bañ la tudd ñu tudd ñu bañ la annoncé moom moo ñu def troisième mandat kàddoom yaa ngi fi génneel nañu ko ko moo ko gën a gis moo ñu ko a xam waaye néewul damay def waaye ku ko wax nañ la dàq ko moom ni muy dàqaate ku ko tudd léegi li ci des nag mooy moom ñu xool fii ak mois de décembre moom fan la jëm ak réew mi junñi naa la sànq nawet bi ñu annoncé woon gis ngeen ñu ngi ci plan ORSEC école la ngi waaju ubbiwaat war na ñu lijjanti fi xale yi jàngewaat mais nawet baa ngi ñëw bu amee ay yàqute yu amaat loolu laneen la nañ xaar fii ba mois de décembre ak janvier fan la ñi gouvernement bi jëmakum réewam ñu soog a wax ay troisième mandat mais guddi yi wax dëgg yàlla man li may demandé gouvernement bi ci gàttal fi lay tënki mooy ñoom nañu essayé li lay war a suuli ak DG yi nga xam ni am nañu ay salaire yu 10 millions lu ko ëpp ñu dem donte benn une heure de temps ñu dem ko ci mbënn mi toog ak ñi ñi ñi ñi sinistré pour mus ñoom li ñuy mus ak li doomu ñu di mus pour ñu xam ni lii dafa metti affaire du image mhm. dafa metti ah